loolee nag ñi nga xam ne ñooy armée bu Sénégal ñoo ko xamle ma ngi ci réew mi quotidien yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu wàllu Sénégal ni ki doon nañu amal janoog tas ko du xabaar yi waaye nag daan nañu yekk musiba ak belengaan nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar ndax waa wàllu Sénégal ñoom nee nañu dañoo fi nga xam ne mooy département bu Pikine waa Benno Bokk Yaakaar bëgg koo sàcc koo hold up bëgg koo fuqarti waaye nag loolee mënuñu koo nangu tey mënuñu koo nangu lekk yéen a gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Boubacar Biaye député bu Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne moom lañ doon tudd ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique daat nañu koy mandat dépôt yéene kaay gi nee na ñett lañ si doon tudd kenn ki di Sadio Dansokho ak Mamadou Sall Mamadou Sall moome nag ak Sadio Dansokho ñoom bu yàgg-yàgg dugaloon nañ leen ci kaso ki nga xam ne nag mooy Boubacar Biaye moo si desoon fanaan na guddeem bu Rebeuss mouvement des entreprises du Sénégal ñoo ngi waajal vingt et unième édition forum du premier emploi 10 février gi di Rewmi ñu xëy fekk fa njiitul bi nga xam ne moom la du premier emploi mooy fexe ba ndaw ñi nga xam ne amee nañu diplôme maanaam ñu daal leen di tàggat fexe ba gëm seen bopp fexe ba ñu mën a demal seen bopp waaye tamit daal leen di taggat ci nan la ñuy lijjante ba mën a am seenum xëy ren ji nag am na lu toll ci mil demandes ci ñoo xam ne bëgg nañoo participer ci édition 2021 bi niki démb la ñu doon amal atelier training bi président ba ñu jop daan nay rafetlu bu baax a baax forum du premier emploi ndax nee na ba ñu ko commencé ak léegi def na ñaar fukki at ak benn yéen a kaay gi di réew mi ñoo ngi koy waajala 10 février jàpp 11 février jamono njàng meeg njàngale mi demul ci nga dikkul mbay laara dafa gàllankooro ñi nga xam ne ñoo ci yëngu jamono ji njàqa rek tiis moo leen tugg waaye nag élèves ñoom ñoo ngi sàkko ñu daal leen di bàyyi ñu jàng ngir nag seen programme yi ñu mën koo yeggale yéene kaay gi di réew mi nga xam ne ñooy parents d'élèves yi ñoom nag sàkko nañ ci état Sénégal mu daal di lijjanti mbir mi balay année balance di am Sénégal bu football na demi final moom ak Burkina Faso defal na ko bagage ñetti bal ci benn la ko Sénégal tour bii mooy ñetti yoon yoo xam ne Sénégal ma ngi dem final Sénégal ci Coupe d'Afrique ginnaaw 2002 ak 2019 ak 2022 Sénégal Burkina Faso la gagné yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na Sadio Mané ni ki démb def na match bu rëy waaye na kenn du Ismaïla Sarr ndax bi ñu ko dugalee rek dafa sens match bi yéenekaay gi nee na sonal na lool défense ñi nga xam ne ñooy waa Burkina Faso Sadio Mané ma ngi woon fépp dem ba final neex na lool waaye nag jël ko bi moo gën a neex loole nag kàddu Sadio Mané la yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Abou Diallo daat nay wax ne coupe bi nag Sénégal daf ko war a jël jamono ci maanaam yor nañ arme yëpp ngir jël coupe bi fii Cameroun yóbbu ko Sénégal yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na Mali bii nga xamante ni tëj nañu ko lu toll si junni ak ñetti téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett ci ay camion yoo xam ne dañoo yeb ba fees carré nga xam ne mooy frontière bi moo tax nag chauffeur nga xam ne ñoo fa nekk jamono ji sonn nañ ba maara day taale conseil des ministres bii nga xam ne moom la ñu génn njiitu réew di président Macky Sall daat nay wax ne élection législative yi daat nañu ko jàpp ñu dëgmale bii nag moo nekk ñaareelu test yoo xam ne ma ngi koy def ginnaaw nag test yi nga xam ne defoon na ko ci élection yi te nag fu bare jurul jàmm ci mooma Macky Sall code de popularité ma ma koy nataat ci élection législative yi waaye nag temps bu moom la Macky am ngir jubbanti ko waat waaye nag ban bi di amee loolee tamit lu jara laaj la yéen kay gi di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu diiwaanu Syrie nee Omar Diaby Diab Diadi séq waxtaan wu yaatu ak Aïcha Koné mi nga xam ne a awaykat la étudiante la styliste la waaye nag fulee woon ci Sen Petit Gallé idolam di Viviane Ndour ci 2014 moo remporté woon li nga xam ne mooy Sen Petit Gallé concours boobee daat nay wax ne avant nag muy tànn changement xalaat na si bu yàgg-yàgg waaye nag nee na mbir yi jafe woon na lool ab mauritanien d'origine la ma nga fekk baax ci réew Mauritanie waaye nag nee na wàllu musique ci Sénégal la ko dooree nee na nag critique yi bëri na loola ci li nga xam ne mooy Sen Petit Gallé alors que c'est normal wax na nag li nga xam ne mooy projet ma